abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam. man mi kat doon naa ko bés ba guddi mu ne ñokkit mi nut ci sama loxo ni maa ne kii ne ma ne ko man cheikh mu ne ma cheikh man ne ma ne ko man cheikh Madou mu ne ah cheikh saa ah waaw góor doom yaa ngi ba si yel yu yàgg jamono yel yooyu di doom ba saa borom tënee suuf ba tey ku fa mas a ñëw moom jamono ànd naa yow liggéeyal la ba jot sa ngërëm ba ci sëñ Bàmba mi moom nag doom danoo àndaat waaye àndoon nañu waaye waxul ñaati yoon noo àndaat waaye àndoon nañu rek fa la yëpp léegi nag koo xam ne ba sunu borom tënee suuf ba tey ba bi sëñ Bàmba di feeñ fii ku fi mas ñëw ànd nga ak moom di ko liggéeyal ba jot ngërëmam ndax kooku mucc na ci jàkk yi ak daara yi ndax mucc na ci téere yi nit ñi xamul nag lu leen neex wala bokk xëy na yoonu murit wala doxinu murit neexu leen ñu ne lu nu neex nan ko fab sëf sëf ko bàyyi faal yi ñu ngi ci erreur nañu dellu gannaaw xamuñu Cheikh Ibra te nit ki gannaaw wutoo koo xam doo ko xam lii kat bu nuy wax lii day wartiif ci nun parce que ñanu ko doon wax dañu leen won dégg nga li mu tàmbalee noo ngeeg seen alal ku nu ñeme ku nu ku nangoo jege nu jox la ku nu nanguwul a jege nu yóbbuwaale mag boo ko gisee mu dof nemmi la ko tax a dof bu jaaree dof nga dof ni moom bu ko jërul nga daw ko Cheikh Ibra li ko tax a def daw ci dof ci Serigne Touba xam na ko Baye Fall yi li leen tax dof ci Cheikh Ibra Fall xam nañ ko ki ko xamul la mu jàng na ca yem te maandu te ba bàyyi faali ba leen bàyyi faali kuy julli jullil kuy woor wooral te ngeen ba bàyyi faali nit lu mu xamul lu ne yem boroomu jàng la war na caa maandu mu jàng kenn néewu ko loo xamul lu ne dee nga àtte ko te xamuñu Cheikh Ibra koo xam ni kii ba suñ borom tenee suuf nag bés bii Serigne Touba di ñëw fii ku fi mas a nekk moom jamono ànd naa yow liggéey la ba ci ba sa ngërëm ba ci sëñ Touba mii ni ko doom moom nag danoo àndaatu ay àndoon nañu ndax xam ngeen lu ko indi fii ne ma ne ko faal loolu bu ni sañoon xam ko mu ne ko daa bëgg fa mu tëdd fa mag ak fi mu tëdd fi Touba foo ko ay fekk saare bu ëllëgee mu dimbali la doom sëñ mbamb mii kat moo nekkoon fa mag léegi nag foofu question ngi foofu nag jàngkat yi ñu déglu te waxati lu leen neex. xam nga sun borom moo ni xakkadun lu ci la ci la ci la ci la ci yem téeméeri junne fukki junne ñeent nun nun nit ñu ñuul ñii ban yonent mu génn ci nun yàlla def noo bind pour neen wala day jàkkaarloog noonu ënd ak layoog noonu nu yey ko fokk mu indi leneen la comme ni ko sëñ Abdou Lahat gis nga li wax moom ina masalu hesi kamaseli adama khalaqahu min turabin suma khalalahu kun fayakun ni sunu borom binde yonti yalla adama non la binde yonti Allah isa yonti yalla isa kula nan diwe bayam sun mama adama kula nan diwe ndayam kula nan ki serigne touba mi ñu nindi la cheikh ibrahim fi yalla tib ci jëmmam je indi tek koku kon indiwaat na leneen tey loo xam ne li bu ñu seetee Serigne tubaab fi mu jaar ak noon yi yu xalimul xëyu la si lay sa yamut alxalqa anani abadan la su amut ñu xam ni jëmmam ja du faatu ba mukk noonee la ko Cheikh Ibra waxee ndongoom loolee ko doon bës ni ko maag sëñ Bàmba nag doom du nu dee waaye kat buñ fi jógee dangeen jël jëmm ya ngeen xamoon ñu waccal leen fi lu ko niru ngeen bu rob bu siyaare jotee ngeen dem di siyaare bu boobaa dungeen ngeen nu gis doom waaye nan daan leen gis waaw xam nga ku xamul lii ba noppi dëkk dëkkal saw làmmiñ ci di ko weddi xamoo ci loo de Sëriñ Tuubaa ku am tuuti xel da xam ni wóor na leen fi mu jaar ak tubaab yi ak li tubaab yi rey ci ñu baax ngir bañ dégg nga lislaam faset fenn wóor na leen ni su doon nit mu def ko du nit suñ borom tibb ca euh, euh, euh, xayu laa yamut moomee tibb ca dikk lu ko neex mu dem lu ko neex mu nekk waaw kenn du limiti pouvoiru suñ borom man mën moo moom moo indi ñaar ñooñu ci ni ko neex moo leen fi jëlit ñoo fi teg li fi nekk nan ci jàpp nun kuy bari wax akat dingat nan sakk suñuy nopp ndax Cheikh Ibra kat ne ku tuub dangay toxu tëx lu loolu la ma Cheikh du wax de sa maam Cheikh Ibrahima nee na ku tuub dangay ngay toxu tëx lu waaw weddikat yi fokk ñu nekk fi fokk ñu ne fi ñaari yoon rekk fi nekk taxut ak saytaane dégg nga foofu ak seenu yoon ñii ñi nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak gàngooram ak siraatul mustaqim rek yaari yoon yi moom du fi jóge wii nag diwu dëgg wi ku koy weddi ku ne yaa nga fee loolu dong la. Eh, eh, Cheikh Ibrahima mas na ko ne maag sëñ Bamba nañ yoon wi foo xam ne saay saay dina ko tiim eh, mii moo ma ko wax sama doomu ndey la mu ngi dund faatoogut dafa ne ma sa nijaay de daf maa wax ni ma dafa toog ci jamono yi nga xam ne Cheikh Ibrahima ngi bëgg a dem Cheikh Ibrahima ni ah doom na ngeen góor góorlu te ngeen fexe ba 106 bii ku ci toog woo leen ngeen ñëw mu laaj leen seeni alal ngeen ko ngeen ne ko noo koy def mënu leen dama koy joxal dama koy joxe ki fi nekkal sëñ Bamba jox leen ko doom na ngeen na ngeen na ngeen def noonu ne am ko ne o oh, ca gannaaw ne Cheikh Ibra ne ana ku ne u um? ñu ne ko sëñ Madou Gueye maaro mii de moo ni u um. Cheikh Ibra ni ko Madou mu ne Fall mu ne ko Madou Gueye loo ni u um? mu ne ko ah, yow kat da ngeen ni sa bi ku ci toog rek waa bu ci daf toogee na ne Cheikh Ibra ni ko ah, Madou Gueye ni nga laaje su kilifa masaan wax ba noppi boo ca tegee lu mel noonu dañuy wax dangaa réew waaye réew dangay leerlu waaye sama siège bii kat doom su ngeen di dox ba mu def toog ci di say di say ba daanu ci suuf yëkkati leen faxas ba mu set ngeen tegaat ko ci kaw te def ko muy saab dof dal leen kurus ñaata per la ñu ne ko Fall am na ñu koy def téeméeri per yu mat am na ñu koy def juróom-ñeent fukk juróom-ñeent mu ne lu ci gën a mat ñu ne ko xanaa téeméer bi ah, waaw ku bëgg la mat noonu ngay def waaw boo yoree sa sa kurus ñor di per mu mat nga ñor di beneen di wàññi ba yegg ci bu xar te jógul ca ca ca buum nga noo koy def da koy jëlam da koy wàññ ñu ne ko ah, Fall dañ koy wàññaali kay mu ne ku ko jël boo yeggee doo matal <laughs> waaw lépp mu ngi leen di wan ni bi muy ñëw di di di wane si sëriñ bi kii dimbali mbindeef yi te ëllëg ñam waa na lan ñu di ko wan yoon sax ba ñëwee ba leen sëñ bi laajee dañ ko ne jaay yàlla lañu àndal Ibra Fall dofam bii dégg na ko ba tàyyi Mbàkke xewar gi wax nañ ko ko fi ba tey waaw waaw ba fi ba tubaab yi bëggee dikk ba nga xam ne dégg nga booba ay salfaañoo ñu ne ko Ibra Fall yow mii lu fi xew yow a ne xeexee ah wax ngeen dëgg de lu xew man waaye léegi defe naan bu Baay Fall yi sikkar ba ni sëwru maam say njaay lii lépp yow dootuñu ko kenn du ko weddeeti hmm? ndax te bati bati nag groupe groupe ba ngi ak nuqi joxe Ibra Faal de moo moo koy indi sëñ bi loolu néewul kenn indil ma dara Ibra Faal xàll yoon wi wane ni leen nii la ku bëgg a doon murit sëñ bi ni wax na ko Touba li abdin muridin saadixin lahum bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati waaw ah, waaw <laughs> loolu buñ ko ci jëree fun jëm Mm-hmm. waaw ba tey naa sax gët yi nga ma ko leerale si mooy li nga sax dafa da koo dagg mooy fi mu Cheikh Ibrahima yoon añ nañ ko foofu caay saay dina ko tiim waaw dafa ne loolu Cheikh Ibrahima ko Cheikh Ibrahima ko wax boobu bi mu waxee boobu bi mu waxee euh, euh, leerale ku fi ku toog ci siisam bi ci la la ca teg loola da caa teg ni leen ñoom na góor góorgóorlu nag te jàpp li ma leen jox ndax kat maag sëñ Bàmba bu ñu demee ay saay-saay dañuy ñëw sunu gannaaw suñ ñëwee dañuy ñëw di sànni di sànni di sànni ba yàqoo fi waaye du ñu mën ci yoon wi dara ndax dañu fekk maag sëñ Bàmba nu aj ko foo xam ne saay saay du ca joti waaw loolu Cheikh Ibrahima moo ko wax nag. xam naa dañ bëggee ñu ko rek mooy kilifa ma si moom itam dafa bokk ci li nga xam ni lu nit ñi war a xam la. man amoon naa ay taalibe yoo xam ni sëñ yaaram la ñu jébbalu woon lu ci man bu nu ma saan di di waxtaan ba yàgg dama leen di wax waaye bu ñu ma nee ay ñaanakit man leen waaye waaye yéen ñi xam yéen a yéen a gën kay dee leen ñaan xam nga duñu nangu man leen ah man de duuralum duur du lu ma fabriqué de sëñ daf maa woo fii benn bis Mbàkke ma ñëw mu boole ak soxna Rama soxnaam sii di sama rek ne ma yaramam day daa sutaati ma bëgg nga yóbbu ko faji ko waxuma la nag jëmal fenn waaye foo jëm ànd naa caag yow mbàjj mi ma joxoon mi ngi nii ci sama wëlis ma denc nee naa leen bis bu ma faatoo ak fu ma faatoo bu ma kenn yóbbu te muuruñu ma ko ñu yóbbu ma ko buñ ma yóbbu ci armeel yi ak ay dàlli marakiis yoo xam ni dafa mboq ma dal di jël soxna si yóbbu ko ndakaaru ba ma ko yóbboo ki ma ko yóbboon ab taalibe ma ñu di ko wax Ahmad Touré mujjoon na sax liggéeyatul ci ci santé mi ngi nekkoon muy directeur euh, direction général bu équipement wu santé ca yooyu jamono ma ñëw ni ko la cour des comptes ci la mujj di liggéey ba ci la retraité ma Touré lañ koy wax ma ne ko sa sëriñ te dafa am liggéey bu mu may liggéey loo mu bëgg la cee tobbil aw sas yooyu itam mu ne ma liggéey bu ma nan ma ne ko sama rakk bu mu yor moom la yaram ba sutaate mu ne ma naa ko yóbbu faj wax ma it ne ma waxuma la jublul fenn waaye fa jublu ànd naa ci yow ma indi ko nag ndakaaru mom mom moom laa lay wax mu ma ban ban sas nga ma ci bëgg a tobbil ma ne ko saso moo di damaa bëgg nga wutal ma docteur bu jigéen bu man mu faj ko ba mu ñibbi waaye docteur bu góor du ko laal mu ne ma loolu de moom dana jàppandi kii yàlla def tey muy ministre de la santé aw mari kol sek bobu mi ngi hôpitalu di di di faj mo soxna si ba mu mu mu ne man yegatuma ci sama yaram dara nu bok tok ni nun ñet aw mari kol soxna si man mu wax ko ku saf xoram la rek mu daan ah soxna si man de may sama xam-xam lim ma won ak machine yi moo yaram wi mom xana legi nak man na def nak li jere <laughs> noona la ñu def ba soxna si yëg ci boppam ni li ko fi indi woon yëgatu ci dara ma ne ko toogal ma dem Touba bu ma dem wax ko sëñ bi jamono boobu kër sëñ Saaliwu Gee noo nga fay defar ay bâtiment nga juróom nga fa yoo xam ni ñeenti sëñ Modou Amin Takode benn sëñ Modou Ablaye at moomee lan koy def yàlla dogal nag ma fanaan Mbàkke bi ma xëyee nag ma jaar ci sëñ Abdou Lahad pour bëgg a jàll jàll ca liggéey ba bi ma ñëwee nuyu ko mu laaj ma soxna si ma nekk fa tabaarkalla ne léegi moom nee na sant na bu baax a baax yëgatul dara luy miti ci yaram wi waaye nag dama ne ko na fa toog ma dikk yëgal la ko mu ne ma kon tane na bu baax ma ne ko mu ne bu mu tax nga gaawantoo ko de bàyyi ko fa ba ca kanam mu noppalu waaye kat Cheikh seen liggéey ba ci kër sëñ Saliou de demoon naa fa bërki démb di ko seeti waaye moom de pësté fa na lool eh, pësté fa na lool de tey gaaw na lool wante kat bi may waxtaan ci sa baay fii bërki démb yàggul sa baay mas maa wax ne ma Cheikh Rafal de mas naa am ganuk tukkulóor gu ànd akub taalibeem ñëw nuyu si ko ba mu ko nuyoo ba noppi nag Cheikh Ibra ne ko yaram yóbbul gan gi nga dàllale ko mu ne ma sa bàyyi jël gan nga yóbbu ko dalal ko ba mu ko dalalee ba noppi dellu si na cheikh ne ko yaarum ana gan nga mu ne ko yóbbu naa ko barab sàngam de falaa ko dal mu ne ko ah yaaram mu ne ko faal mu ne ko kilifa ga dënn ba fees na dell ak i araf waaye ndongaam la mànde la ko gën ko ndonga la mas naa gis sëñ bàmb waaye kilifa ga mos a gis sëñ

pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.